benn bu ñëw tegu rek ñu fàtte beneen bi bërki démb bii lañ fi doon wax quarante cinq milliards en armement quarante cinq milliards en armement document bi génn lépp lépp ñu génn ko dugal ci internet bi fii ñëpp yor mujjul fenn mille milliards covid moom war nañ fàtte lu ne sauf covid bi parce que Covid bi luñ ci dund mosuñu koo dund ci kaw suuf Macky Sall jàpp nañu tëj ñu ci kër yi noq ñu di ñu karawaase di daq daqe ñu tëj ñu ci biir kër yi ñu xat xatoo ñu mu naan porté leen ay masque di ñu fayloo ay mille francs di ñu wàcce ci kaar yi di ñu fëgg ay ay ay mbolde di ñu daqe lu ñu dund ci Covid bi mosuñu koo dund Sénégal arnaque bu ñu dund ci Covid bi lu ñu koo dund kon ñun lu ne mun nañ ko fàtte sauf Covid bi. mille milliards ñi ñëw génne ni ñii dañoo lekk mille milliards yi ci ci mil mille ci Covid bi lañ ñu la ñu Macky Sall wax vaccin yi kaay leen ngeen pikiru ko wala mu may ko waa Guinée saaga ñëpp kon loolu xanaa toroxal bu ñu la toroxal waroo ko fàtte li moom danañu ci toroxal ñun dañ koo dund mille milliards quatre quarante cinq milliards armement bi mun nañ ko bañ a dund. mais bii dafa am impact ci suñu dund mille milliards dafa am impact ci suñu dund parce que daf ñoo tere woon liggéey teel ñoo wàccloo tëj ñi ci biir kër yi naan raxasulee nag ay séparé wulee nag ku génn mu noq la dàqe la donc loolu kay ñun am nañ impact dafa am dafa impact ci suñu dund am ñum ci tëj ci ay kaso am ñu ci fayeeku ay masque am ñu ci toroxal réew mi yëpp mu toroxal leen ñu seddoo mill milliards yi affaire bi génn wone ni ñii lañ sàccee xaalis bi procureur taxaw ne dafa auto autosaisie taxaw gars yi bind ci wa wa Seneweb bind ñëpp bind ci fouraas Macky Sall may leen rek deux semaines trois semaines yu fàtte kenn waxutu ci Sénégal réclamé tul mille milliards yi procureur ba romb na <laughs> mais réew mi dafa dafa jaxasoo ah réew mi réew mi dafa dafa yéew moo tax ma ne waxoon naa ko dama koy waxaat moom laa tëjee sax réew mi nalaw fi moo gën xoole réew Sénégal nalaw moo ëpp jàmm yeewu ci Sénégal boo yeew da ngay dee parce que da topp événement yi muy répercuter si sa xel sa doo ko mun a faj ngay am ay traumatisme post crânien ay traumatisme ngay am parce que parce que loolu yow da ngaa moo tax benn événement du la rëcc bu amee rek day day delloo ci beneen bi parce que dafa am ay impact mu def ci sa dund parce que da nga yeewu événement yëpp day ñëwaat sa kanam da ngay gis ñu rey nit rek nga ne bopp armement yi quarante cinq milliards yi pap aw ah, ngay gis lu moom moo lay delloowaat da am ay post trauma boo gisee nit yi di souffrir nga ak ah, kon mille milliards yi loolu moo mais boo fi nalawee Sénégal booy nalaw doo xam jaay da koy fàtte da def comme ñoom rek da ngay fàtte lépp ngay fàtte lu ñëw day bees ci yow parce que da nga fàtte ngay mel ni ku am Alzheimer lépp ngay fàtte bu dara ñëwee day mel ni lu bees ci yow bu ñuy débat nga débat ci mu bees ci yow après bu bee mu romb mu ñëw débat ah miis bi kat am nañ koo biiral nga ah mu bees ci yow parce que fàtte nga ko <laughs> ci ngi am jàmm Sénégal boo yeewoo da ngay sonn moo tax ma ne la boo yeewoo da ngay tëddiwaat parce que doo am koo waxtaanal da ngay yeewu yeewu Sénégal am vision yeewu xam adduna bi gis développement dund ko. nga ñëw fekk gars yi nekk ci ay débat waaw kii nday samp quatre la fi samp cinq garab nga ñëw nii mais a bokk ci waxtaan boobu mais nit ñi ñi ñi ñi ci ñi ngi ci tolluwaayu ay samp ay garab ñi ngi ci tolluwaayu yokku tali ñi ngi tolluwaayu def ay canal d'épuration mais doo fa mun a waxtaan parce que yow développe sa sa monde bi ngay dund développement bi dafa dépassé loolu ça ça reste inaperçu da koy romb sax ci bàyyi xel ndax ci loolu nga loolu nga màggee loolu nga gis pour yow loolu moo normal nga dem Sénégal fekk fa ñoom pavage doon lu rëy ci ñoom ah mi ngi xëy pavé oh, mi ngi pavé mi ngi pavé oh, oh, da nga toog nii mais doo bëgg a bokk ci wax ba nga xam ne mais lu ñu pavé ba nga wàccee aéroport def nga def nga 30 ans kaaw ba foo yor romb yëpp dañ ko pavé. c'est-à-dire yow bu ngi bi def nga fi 30 ans 30 ans bi yëpp nga dox dañ koo pavé boo ñëwee fekk Sénégal ñuy werante pavé looy wax yow jiitu nga leen 30 ans de pavage jiitu nga leen 15 ans de pavage bu ngay ñëw ay wàcc aéroport ci pavé lañ nga ñu ci aéroport ba di dox ñuy gis ñuy wax waxu donc yeewut yeewute da lay sonal te bañ a yeewu mu ëpp njëriñ foofu moo gën a yomb foofu xamoo dara lépp bees ci yow looy seetaan mu bees ci yow xam nga nga débat ko ak ñoom ñu toll toll ci bu ñu waxee mise lañ biiral nga débat ci mbir maa nee na moom ku waaj da ko tëddee baaband euh, dal après nga kii nga dal ci kii euh, influenceuse la ci nga dal jàpp nañ Babacar Touré Kewelo nga xam ne ah nga débat comme ñoom parce que euh, malgré que jàpp nañ fi coro tamit c'est la même chose ah fii bi mooy def nii rek wërngal cercle wala Sénégal ñàkk fa yeewu moo ëpp jàmm foofu yeewu ñu fa yeewu dañoo sonn duñ mun a débat fuñ dugg duñ fa débat dof sax lañ leen di jàppe dof parce que duñu mun a débat duñu ils sont duñ nekk <laughs> dañu nekk ci loo xam ni ñoom xam nañ ko cinquante ans wala trente ans wala seen dund yëpp xam nañ ko ñoom ñii ñu ngi koy doog a xam léegi nooy débat ak kooku man tey imagine toi ma ñëw Sénégal toog fa ñu naan non gars yi ñu <laughs> ko sa ñu ngi joob non ma ngi ko dako ko pavé no pavé temps bi yoo lay mën a wax foofu dafa pavé temps loo mën a wax yow nga xam ni sa waay def nga quinze ans ci kaw <laughs> mais yow kooku da xam ni kon rawee ko ko 15 ans d'évolution 15 ans doo fa mun a bokk noonu la mel noonu la mel wala tali bu ñu yokk ah yokk nañ tali bi non yokk nañ tali bi non tali bi léegi tali am na ay aller retour léegi mën nga def deux aller retour fekk yow gis nga tali boo xam ne mi ngi toll ni Washington tali boo xam ne quatre aller retour cinq aller retour yow nga gis ko yow nga dox ci nga dawal ci oto nga dox ci nga dugg ci oto mu romb foofu noonu. centimètres ñu ñu toog di ko débat est-ce que mun nga faa bokk waxtaan boobu <laughs> boo ci bokkee danga leen di toroxal de boo ci bokkee da leen di toroxal parce que seen niveau wokk ko ñu xamuñu ko xamuñu ko c'est comme nga dem ci benn village bu xamul lumière nga indi leen fa lampe gars bu ñu yeewoo dañuy tourner di xool lampe bi dañoo dugg benn village bu nga indi leen benn lampe lampe solaire nga tegal leen ko guddi gi village waaye yëpp dañuy ñëw wër lampe bi di ko xool <laughs> di ko laal di ko laalaal xool eh, eh, xoolal gis naa sama loxo bi sama loxo baa ngi nii xoolal sama loxo bi noonu lay mel mais noonu lay mel dañuy ñëw wër affaire di xool xoolal ma yaa gis gisaat naa sama da mel ni ab bu jàkkaarloog benn benn miroir maa ngi nii kon eh, mi fi oh, waaye léegi noonu lay mel day mel ni jamono esclavage day mel ni jamono esclavage parce que rien n'avance rien booy Sénégal dafa statu quo dara demul dara ñu hérité ay sàcckat ay fenkat ay njublañ ay takkatu dil ay gars yi nangul liggéey yeewu di wër ci bureau yi di fëgg ñi ku nekk di wër lu yomb ku nekk di wër lu yomb ku nekk wallahi la azim non amul benn xam-xam moo dama tayal la seetaan seen du damay romb di tam di wéy oh c'est triste en tout cas métti na daal di masawu gars yi nekk ci kaso bi boobu ba léegi di leen masawu nag di leen masawu lool lool lool lool di leen masawu ñoom nit dof Coro Mandela masawu Babacar Touré Kewolo masawu gars yëpp quoi ñi am ay six retours de parquet maa leen di masawu daal métti na nag métti na xaw ma kan lañuy ñuy libérer réew mi mais doy daal métti na trop metti trop ñu ngi leen di mastawu ñi ci dee tamit ndeysaan ñi ci dee ndeysaan perte nañ ndeysaan wala ñi ci dee rek moins de rien rek Macky Sall rey na vingt personnes vingt personnes réew maa ngi dox seeni soxla naan naan day demam du dem vingt personnes rey na quatorze teg ci Mankabu teg ci Didier Badji teg ci Fulbert Sambou mu mu 17 euh, mu rey bii paase bii paase mu rey ñett ñett dee ci vingt moins de rien personne de de dee nañ vingt personne nii te ba léegi mi ngi taxaw changé gul discours mi ngi toog fu mu toog vingt personne ñu ci de yàlla na yàlla yërëm te xaaree la àjjana yàlla na yàlla yërëm waaye am na suuf oyo seen kaw yàlla leen foofu gënal fii yàlla leen foofu gënal fii quoi ñu nekk ci kaso itam ñu ne di mastawu lool sax injustice bi ëpp na jégg na dayo doy na waar yéeme na lool dépassé na sax doomu aadama yi sax ci entendement ci nit ñi sénégalais di dundee jamono ci waaye yàlla baax na comme foofu laa gëj terminé nañu loolu lañ am yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na waaw waaw c'est ça l'évolution de la conscience collective yàlla na yàlla soppi mbir yi quoi yàlla na yàlla yàlla na yàlla def benn grain de patriotisme ci xolu sénégalais yi yàlla na yàlla def benn grain de patriotisme ci xolu Sénégal bés bu sénégalais yi doonee ay patriote bés boobu lii nii am du am réew bu bëri patriote bëri lool patriote lii am duñ ko nangu mukk parce que patriote mooy nit ku nit ki yàq réewam day xeex ak yow wallahi al yàlla na yàlla def fibre patriotique bi ci xolu sénégalais yi amour patriotique bi ci xolu sénégalais yi ba réew mi jaral leen lu ne kon lii du fi am yàlla mun na ko yàlla ko yàlla def one love jaajëf sama gars yi peace and love ñu fanaan rek jàmm